kër gi laa la wax. waaw dox nànk laa fi soxla pinge say cër épingle say tuñ. waaw ndax Adama bëggul bruit bëggul coow. da nga naan papa tuugal ci kër gi ma toog ñu ne ci jàmm munoo ko ma takk samay bagage dellu sama kër coow li jeex. papa defal loolu nag loolu nga bëgg. ma mën a bëggal. bu ma saana taxaw teere kaar ba doxantu. ñu sànni ma bal ma damay amati bal bi teg ci dënn bi. sama contrôle orienté non loolu mënatuma ko. sama yaay moo mën a supporter say yéel yi mel ni reenu màdd. gis naa sukaru koor gi. waaye nag daa mas sa am. teraanga ren laa la ko mën a jox ndax dama koo yorut. gis nga Adama Fall bu nga xamoon barki démb ak démb ak bii dafa uute. da ngay takk sa bagage dem ci kër ga ñu ñëw wala jël say bagage génn dem ci. ma ni dew ma nin taara nkuuka boo. nkuuka boo wax. eh nkuuka maa ko wax. kon yow yaa ngi dem mani di jëli ay renfort toujours di ma insulter di saaga nkuuka bon d'accord. yow dégg naa yaay fay courant yaay fay ndox. doon mankan kunkan potu ndox xottu pot ku jot bërëng ne sa mbaab day wër di ma yàq nee na kër laa yi yoo wadde nga de man kat bi nga doon wax ko doo wax dëgg mukk ah. eh, eh, eh, ah. waaw waaw ah. yow li lay dóor a ngi ñëw maa la long maa la large dóor la bay brek sa kaw dara ci